tey euh, jaaxle la tey it euh, nekkuma nit bi nga xam ni vraiment dinaa wax ci presse man lu ma xam liggéey ñu bisuma kër tey nag situation bi xëy na moo ko wootee ah, il faut que vraiment ma wax parce que itam wax ji yàgg na parce que ñu ngi ci trois ans et demi vraiment ñetti at yëf yi nekk fi vraiment ñi koy wax ñi koy kii tout mais su ma demee tey ba jàkkaarloo ak vraiment ay télé ay journaux di wax ñàkk pexe la aw pexe il faut ma dinaa leen ci leeralal quand même dit, nga parce que yëf fi mu commencé franchement bi suma deuxième femme alors euh, boobu daal voyage vraiment euh, fay fekk fi nga ko vraiment police ñëw jël euh, suma bureau dañ ma jël si vraiment yóbbu ma bi ma àggee foofu itam police lu ma njëkk a wax fan nga jaar parce que man ñu ngi woon aéroport di la jël si parce que yow da nga waroon jóge aéroport rek directement ñëw alors que euh, fii ci dig ma ni leen mais loolu pour lan man sàccuma euh, reyuma nit euh, jaayuma dorog loolu lu tax ñu ne ma non Xaadim Basa doom moo la porte plainte ma ne ah loolu lu xew ñu ne ma woy parce que da nga def ay détournement da nga def ay kii génne benn protocole won ma ko boo xamante ni bii ni ñoom ñoo ko def su may doom wane ni dama leen a may ay action ci Carrefour ak ci Log Afrique et sax ma ne ko lii yow yaa ma ko won te it ma ne ko xoolal bu baax ay action boo koy mayee da ngay dem ci notaire boo demee ci notaire vraiment nga yóbbu ko fa alors su ko defee nga ni lii ak lii ngay maye alors euh, fay piliwal yi parce que booy may itam état dafa am loo koy fay nga fay piliwal yi ma signé ko foofu te man su may signé itam parce que man jànguma école bay maye loo xamante ni bii nii euh, ay témoin du ñu taxaw interpret taxaw parce que tout li may liggéey ci banque yi euh, bu ma demee ba ci notaire noonu lay demee et tout donc ma ni leen lii kon amut donc euh, loolu vraiment amout mais teewul aussi man tam ma daal di porte plainte vraiment mu dem ci procureur effectivement ñu jël dossier bi yóbbu ko tribunal bi ñu ko yóbboo tribunal itam tribunal jox na ma dëgg pour que vraiment que ma delloo ñu delloowaat ma ci samay droit yépp yi nga xamante ni bii ni jëloon nañu ko alors pour ça amna nak peut-être lo xamanteni ñu ko ci top muy li nga xamanteni pénal la mais lolu ñom signature yu bon yi ñu def la ak ay chèques yu détourné lolu moy pénal bi nga xamante ni bii ni moom la ñuy topp mais li nga xam ni samay droit la ñu waat ma sama euh, log Afrique ak nekkaat président bi si ñu changé woon yëpp ñu changé ko kooku vraiment kenn waxatu ko woon bon léegi nag ñuy dem ba nga xam ni loolu pare na alors euh, ma jël benn directeur sensé ki nga xamante ni bii ni mooy suma doom parce que itam comme déggootuñu il faut que ma teg fa koo xamante ni bii ni quand même kon lu ma ko wax mu def ko alors euh, mun a liggéey bi avancé ko et tout ça ah ma gis benn ordonnance boo xam ne génn na le premier euh, président cour d'appel yónnee benn euh, ordonnance nee na bala may mun a def loolu il faut que ma provisionné 3 milliards ma ni mais sa yëf loo ci kii 3 milliards loo xam ne yow yaa ko moom ah loolu man jaaxal na ma laaj avocat yi ñu ne ma ñoom jaaxal jaaxal nañu li ñu xam ñoom mooy bind waxante dem ci baro mais nag bu fekkee nit day tëju ci biroom bind alors ay ordonnance ni 3 milliards de say yëf kër yooyu la même chose ci registre de commerce bi aussi il faut que 3 milliards il faut positionner 3 milliards ci loo xam ni suma yëf la loolu daal moo ma jaaxal moo tax tey ma ñëw vraiment jàkkaarloo ak peuple sénégalais wax leen li nga xam ni moo am wax leen li nga xam ni moo ci nekk et tout ça wax dëgg yàlla yaakaaruma woon ni sistis euh, dina demee nii ba léegi ci suñu Sénégal wax dëgg yàlla. jafe-jafe moom àdduna bi yëpp ko am société yee ko yëpp ko am mais wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla ndaxte wax dëgg yàlla gis naa ni sama personnel bi liggéey ak man depuis affaire bi am ba léegi mun naa wax ni suma doom def la ma loolu mais joyuma dom parce que ñu ngi ci sama ginnaw guddi ak beccëk ñi nga xamante ni aussi sumay nit lañu ak avocat yi aussi vraiment lepp lu ñu wara a liggéey ñu ngi koy liggéey donc vraiment fofu awma ci problème kay sama problème mooy premier président cour d'appel vi gënne ay ordonnance dima ma laaj 3 milliards 3 milliards tay même su ma ko amee di ko mais war na ci mën a liggéey leneen 3 milliards bu féké dafa wara nek caution bancaire mun naa ko am mais lan la ci banque bi di laaj ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay frais yoo xam ne da nga ko war a fay mais xaj na feneen bu ko yoon dagal na lool lii ñu def tey lii ma def tey taxaw jaaxle ni moo tax ma ñëw duñu ko def parce que ñun ci yoon rek la ñuy def tey bu ñu yoon woon ñàkk ngeen it dañuy féeteeg yàlla xam ni dañu ñàkk yoon moo ñu ko xañ mais li ma du d'accord mooy lii Youssou Ndour di way jaay doole baaxut moo tax tey ma ñëw fiyetul sax suñuy avocat ñoom di suñu loxo ko di ko di ko défendre quoi